yokku maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës xeex yokku courant bi gën di yokku kuréel gu bees tudd suñu courant kenn du ko yokku judd ca Kaolack ñi ko taxawal ne ñoom tamit ñoo bañ ñoo courant bi di yokku l'hôpital bu Kolda gën a feebar ñi feebar sax di fay dem amul nit ñu doy amul tamit jumtuwaay tax ba askan wa di woote wàllu ngi wéy ca Dakar dem dikk kenn ci kilifa yi daal di tontu liggéeykat yi sàkku ñi càmbar yorinu kër googu ki nga xam te ne nag mooy directeur commercial marketing ne ay waxu caaxaan la. mbirum ñaari kër Moustapha Cissé lan lakkoon ca Touba bokk ci ñu war a atte ci chambre criminelle yan yi amal ca Diourbel mbir moom nag amoon 2014 ñu tuumaloon ci ki nga xam te ni mooy Serigne Assane Mbacké taxoon sax ñu daal di woon ko ci jàpp daañu teg xibaaru tàggat yaram chroniculture bi jeexal ak li ci yenn kaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi. mbokk yi ñu leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door ak mbirum courant bi li ñu yokk njëkk li métti lool euh, ña nekk ca Kaolack tax sax ñoom ñu taxawal fa genn kuréel gu ñu woowee suñu courant kenn du ko yokk nee nag li ñu wax ne moo tax ñu yokk ko teguwul fenn euh, tax sax ñoom fan yii di ñëw ñu ngi waajal ab euh, ñaxtu démb nag lañ ko xamle Mamadou Moustapha Guèye yor kàddu kuréel googu di suñu courant du ko yokk ci micro Ibrahima Diame. temps ñu jug ñun sommes tey Sénégal il est temps ñu taxaw parce que tey da ngay xol tey gi courant bi suñ ko tay xol tey yombal mais tey gi ni courant bi cher na cher bo xamanteni amna sama ben xarit facture 400000 mille lañ ko jox amna sama ben xarit dawal facture cent mille lañ ko jox

delul ginnaaw doon wax di euh, Doudou Balaraya doon wax ci turu kuréel gi kon euh, di euh, sunu courant kenn du ko yokk ñu fàttali ne dima ajuma bi ñu weesu ñoo bañ ñoo lànk ñoom fii ci Ndakaaru amaloon nañ fi doxub ñaxtu ngir wane seen ñàkkaan ci yokk njëgu courant bi wax ci TER bi train express régional ak jafe-jafe yu mu jural ñii di waa banlieue bi ñi xam te ne nag ñoom la projet bi laal ñoom wéy ba léegi di sàkku nag beneen yi yeneen i bërëb yu neen mën a dëkkal ñoom nag nee ne tey jii la ñu gën a dund ci jafe-jafe te nag leen nguur gi waxoon ba léegi nii da gisaguñ ci dara ndax mbir yi dafa yeex ndongo ka collectif bi ëmb nag njaboot yi impacté ci train express régional bi ne xaar nanoo xaar nag bay bëgg a xaddi seeni ku njiit ni xaar bu yàgg bi doonatut lu nuy mën ñu ne comme ñun dañuy wax ak autorité bëgguñu leen les limites bëgguñu wax wala def na ko su dul noonu mais fu mu nekk nii dañu nekk dos au mur nañu jox suñu suuf nu mu gën a gaawee sans délai Makoddu Fall ak i ñoñom nag di sàkku ci kilifay réew mi ngir ñu daal dee baral li di viabilisation bi ak aménagement wu pàkk yi nga xamante ni moom lañ leen jox dañu ne woon dañuy def indemnisation mixte indemnisation mixte équivaut à ce que dañuy jox souf jox ñu kër mais depuis ñuy passé conciliation ba légui xaalis rek nañ jotagum mais ci souf ci waxaguñ ci dara notification yi nak genn nañ ko mais ñu bari amaguñu parce que nenañ nañ soi-disant ay omission nañ omission yi nak sen nombre nak dafa bari plus de 3000 impacté bo ci génnee 708 Malika genn 135 Thiaroye defe naa li fa des bari na. mu doon nak yitte ju rëy ci ñom njaboot yi impacté ci train express régional bi waye dogal bi ci kilifa yi mujjé jël jëm ci ñom bi ci mujj ci décembre 2000 2018 la woon. Ah, setu camp bi moom mosoon nañu fa yóbbu benn yoon ñu xam emplacement setu camp bi fu mu nekk mais depuis lors amul benn évolution les autres sites mooy Malika notification yi nañ jox mais xamuñu exactement emplacement site yi ancien gouverneur bi nag dafa ne woon dinañ ànd ak ñun dem foofu a xool exactement site fan la nekkee ci conciliation tamit dañu ne woon dañu am droit à un prime de vulnérabilité ak benn accompagnement social bu nga xam ne APIX moo ko war a joxe joxe guñ ko te loolu tamit ça pose problème. centre Jacques Chirac bu Thiaroye mbooloo mu takku ñëwoon fa nag. ngir teewe gi leen ndaje ndongo ka caaroy RFM ndongo kax uh, wax ci kër gi di Dakar dem dik, uh, fan yëpp nag coow am fa gannaaw bi yi uh, di yëkkatee seen kaddu di ñaawlu nañ yore kër ga ñu ci tuumal ki nga xam te directeur ba jamono ji di maître Moussa Diop tax sax ñuy sàkku coof mu di chamber na mu yore kër googu tontudu nag tontu du farax ki nga xam directeur commercial marketing bu Dakar dem dikk daal di tontu liggéeykat yi nee na ay waxu caaxaan rek wax te li wax dara amu ci ndaxte fi mu toll nii direction ba leen rek moo ko yitteel mooy fexe ba kër ga siqaliko te ñu ngi ci euh, kon dañuy dem ci Ziguinchor fekk fa Lamine Ba ci kàddu yi nga xam ne ñu ngay tukkee ci directeur commercial et marketing bu Dakar Dem Dikk liggéeykat yi amuñu sañ-sañ joxe seeni xalaat ci ne entreprise bi nar a ak investissement yi nga xam ne la war a amal uppa oteb Kajoor mel ni jàpp ne loolu ingérence la ci gestion wu directeur général bi lee dañuy bëgg a wax naan directeur général lu muy doxalee ci wàllum interconnexion maanaam bus yi dem ak dikk ci diggante gox goxaan yi ñoom ànduñu si dama leen bëgg wax naan seen yoon nekk ci du seen coobare du seen euh, ak seen yelef ñoom lu leen lu ñu leen laaj mooy ñu aar ak yelef liggéeykat yi ndax liggéeykat yaa ngi faju ndax liggéeykat yi ñi ngi fayee ko ak yeneen ak yeneen ñoom sax ñoo yor pajum liggéeykat yi te tey Dakar Dem Dikk euh, liggéeykat new ñu di faju

déclaration de patrimoine Of nak ñoo na saytu liggéeyu euh, maître Moussa Diop daanaka lépp leer na lépp nu muy doxalee mbir mi baax na ci rapport ARMP bi mujj moom bokk ni xam ne gars yi ñu naan gàcce ngalaama ndax ni nga yoree kër gi da nga ko yor ci rigueur te loolu la ñu soxla pour Sénégal jëm kanam responsable alternative générationnelle bu commune bu Ziguinchor moo ngi yëkkati yooyu kaddu ci ab bureau politique bi nga xam ne da ko woote woon ngir waxtaan ak militant yi ci li jëm ci wàllu teew yi nga xam nag maître Moussa Diop di directeur général bu Dakar Dem dig war na ko fi def ngir amal lancement Casamance Dem Dikk Lamine Ba Ziguinchor Radio Futur Média Lamine Ba dañuy des foofa ca eh, bët Saalum réew ma buñ eh, jógee Ziguinchor dem ba Kolda eh, foofa nag askan wa moom li leen soxal mooy melukaanu l'hôpital ba ndaxte nee na amul jumtuwaay yu doy amul nit ñu doy rawatina ay spécialiste tax na ñu bëgg ñu daal leen ci indil saafara Abdoulaye Diallo hôpital régional bu Kolda mooy traversé ab situation bu métti lool bi ñu dégloo kàddu waaye jëfandikoo bile hôpital situation bu métti la parce que nit kuy fay xaalisam ku feebar ñëw consulter wu ñu war ko opérer mu fay li mu war a fay lépp ñu convoqué ko en salle d'opération dem ba mu war a opérer wu ñu naan amuñu lu dey ni électrode pour ñu mën ko anesthésier ñu opérer ko loolu dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la ci hôpital bu dey ni hôpital kol hôpital bu Kolda boo xamante ne hôpital bi Kolda yi moomuñu ko sax sous région euh, la situation sanitaire de Kolda situation bo la population situation catastrophique donc état bi dafa a un traitement spécial à l'hôpital régional de Kolda. benen doléance bi ajo walu paj mi ba léegi mooy ñàkkum cardiologue ci Kolda. Kolda hôpital régional bi amul cardiologue. Kolda hôpital régional bi personnel bi doyul. Kolda hôpital régional bi. état bi daf koy jox subvention au même titre que yeneen centre de santé alors que Kolda euh, la situation sanitaire de Kolda situation bo xamné la wergu yaram population situation bu catastrophique la. askanu Kolda ñooy sakku ndimbal ci njiitu réew mi ngir safara bi le situation bu hôpital régional la. bu damay woté autorité yi commencé ko ci président de la république bi nga xamante mom mo yor décret yi nañ ñu yone administrateur vraiment yu yu yu yu bëgg yu bëgg a liggéey ci biir ci liggéeyal askan bi. donc lolu dafa nek lo xamante lu metti la ci population bi lu metti la ci ci patient yo xamante dañuy ñëw ci hôpital bi yaakar hôpital bi yaakar personnel hôpital bi pour mëna faju té duñ ko mën a am vraiment maa maa ngi joytu te Kolda yëpp di ko méttitlu ngir jafe-jafe yi xew ci hôpital régional bi lee tax na affaire hôpital bi ñu ngi koy jàmbat fu ne RFM Kolda Abdoulaye Diallo. 8h dem ba tegal juróom euh, ñeenti minutes way ci xibaar yi wax ci leneen mu jëm ci wàllum yoon ak nag euh, lii di ñetteelu session chambre criminelle bu Diourbel euh, di atte ñi atte mbiru faat bakken ak nag yéen loxoor yu doy waar yi tey ji nag lañ koy tàmbali foofu ca tribunal yu Diourbel ñeenti mi rek lañ ci atte bi ci nar a gën a fës nag mooy mbir mu dox diggante Moustapha Cissé Lo ak Serigne Assane Mbacké moom Moustapha Cissé ñu taaloon ay këram ca Touba nag loolu ci atum 2014 la woon leeral ak Babacar Diouf. mbir mi doxoon diggante Moustapha Cissé Lo ak Assane Mbacké ci ñetteelu fanu chambre criminelle yi nga xam ne ñoo ngi koy amal ci tribunal grande instance bu Diourbel ci leen koy àtte assan Mbacké moom ci àllarba bi. dina wuyu ci li nga xamante ne moom lañ koy toppee ne dafa lakkoon këru jàmbur ak boulangerie jël lu mu moomul boole kook doole mbir mi nag mu ngi amoon ci atum 2014 ñaar fukki fan ci weeru juin ci atum 2014 ca foofu foofii nga xam ne ay ñaari këru Moustapha Cissé Lo lanu lakkoon ak benn boulangerie ay fan rek lañ ci teg Assane Mbacke yëkkati kàddu ne lii moom moo ko def du kenn ku dut moom li ko waraloon nag nee na ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo dafa jëloon ay wax yu tegginuwut teg ko ci nijaayam ji di serigne Abdou Fatah Mbacke di dossier bi ñu fàttale ne Assane Mbacke fi mu nek ni dafa ci liberté provisoire Moustapha Cissé Lo sax ci communiqué waxon na ne bal na képp ko xamna ni loxom takkon na ci mbir mom yeneen ñetti affaire yi nga xamanteni nar nañ ko jugé ci session chambre criminelle bu njaareem dina jëm ci li nga ni association malfaiteur càcc goo xam ni dañ ko bolo def ko yor ci auto mu jëm ci escroquerie yore nganaay lo amul ak dóor yoo xam ne ni da ko def ci teef Diourbel RFM Babacar Diouf Babacar Diouf affaire yi ñu war a atte tam ci mu yoon euh, di amé ci Kaolack foofu tamit chambre criminelle bi di door ligéyam tay ji euh, fukki mbir ak ñaar lañ fa wara atté di mbirum Fat bakken ay càcc nak non tam walum yàmba Ibrahima Diamé. li ko dalee fukki fan ak juroom ben ba ñaar fukki fan ci wéru décembre lé tribunal grande instance bu Kaolack war na sëgg ci audience chambre criminelle yi ñu tumal né dañu def ay crime donc war nañ justifié wu ci kanamu juge bi lu mat ñenti fan accusé ñu ngi tollu ci ci fukk ak juróom ñu leen di xaar ci baar bokk na liñ di meurtre trafic de chanvre indien vol en réunion association de malfaiteurs maanaam dajaloo def lu ñaaw loolu mooy menu audience bile Braham ak Abdourahmane Dieng ñoom ñoo leen di tuumal wàllu meurtre maanaam rey doomu ñu di xaar kon ku ki ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre keneen ki ci ñaar ñu comparaître janook lii di tribunal altiné bile 16 décembre maanaam fukki fan Ben, juróom-benn ki Omar dem moom mooy ubbi yëf yi taxaw ci bar bi ñu ngi koy tuumal ne moom dafa dóor doomu aadama bi mu ñàkk bakkanam waaye fas yéenewul woon def li ni mel ñi ci topp ci même bés bi moo di Ousseynou Samb ak Sounana Ndëmb ñoom it kenn ki ñu ngi koy tuumal trafic intérieur de drogue ci élection nag deuxième jour audience bi di 17 décembre ki ñuy duppee Braham Sow moom mooy jël relais bi ñu ngi koy accusé tamit rey doomu aadama boole ci càcc Ibrahima Jame Kaolack démb la xew ca euh, Bamba Thialène di dëkk bu nekk ca diwaanu euh, Tamba benn waaye nag bu toll euh, ñeent fukki at juróom moom la kenn gorote ba fa la jaar ñàkk bakkanam ki nga xam ne nag moo ko faat këram askan wa dañoo génnoon ngir daal di koy taal ca mu dental ga sax ñi nga xam te ne ñooy police ñoo daal di ñëw ngir daal di koy mën a rawale wax ci wàllu mbëkk mi jamono yëpp ñuy wax ay nit ñu faatu gannaaw bi njële woon gaal ngir dem ca Espagne ngir nag xeex lu ni mel eh, ndaw yi nga xam te ne ñu bokk ci APR ca diwaanu Mbour amaloon ci ndaje waxtaan nee na nag ndaw leen wan dañ leen war a gën ci wàllum koom su ko defee ñu am seen yëngu-yëngu bopp eh, ci loolu sax eh, kuréel gi di mouvement am dem fare ci nguur gi ñoom tax nas nañu amal ndajeeb waxtaan ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer décembre yi foofu ca Mbour Abdourahmane Diallo ci fan yu ñu génn nii ay ndaw yu bari ñàkk nañu seeni bàkkan ci géej gi ñoom bitim réew lañu bëggoon dem ndaw APR yi jàpp ni réew mi am na opportunité yi nga xam nit mën fi toog toog ba noppi tekki fi Ousmane Sow kenn la ci waa Kogère. bëgg bi moom vraiment kuy jeune moom affaire bi aussi da nga koy ñaawul métti na trop waaye dañuy xamal jeunes yi rek vraiment lu ñuy dem di wuti aussi extérieur mi ngi fi Sénégal tey soo jógee nga dem si tool yi nga dem Fuuta wala foo mënta dem tey soo bindee say projet xaalis boobu boo xamante ne da nga koy def si gaal bi vraiment tey mën nga ko jël nga def ko si biir Sénégal nga liggéey si nga tedd si ñeneen aussi nga mën a employé ñu si liggéey. yeneen i ndaw ñoom di wax ci programme njiitu réew mi Macky Sall ndaw mouvement am dem sax di amal ab panel le 28 décembre bu ñu jëm ni ngir xol yan priorité lañu wara a ngir suqali Mbour Moustapha Ndiaye mom moy njitu mouvement agir avec Macky pour le développement de Mbour. bo demone tay nga yee mak mo xamné ne bi bi mu génnee na su yeewoo day dem kërëm directement ça veut dire que li fi changé wul donc euh, et ça nous interpelle nous tous ñu nek ay jeunes and ak président Cheikh Issa ñu nek ay responsables ay jeunes yo xamanteni ni xalaat nañ ni développement Mbour par force ci suñu loxo lay jaar motax ñu woote ndaje boobu noonu nag xamante ni bu ñu ñëwee dañ fay sottante xalaat am ay plan am ay stratégie après ñu mettre en œuvre pour l'émergence de Mbour. ndaw ak ndaw mouvement Amdemi di xamle ni Sénégal am ay programme yu bari yi nga xam li ko tax Abdourahmane Diallo xibaaru tàggat yaram Malal Junior Diagne leen ci àndal Diagne maa ngi laa nuyu maa ngi fay Alaaji Njogu Jeen loo kaa ak wàllu football bi njeexitalu euh, ñaareelu bés ci journalu ci footballu euh, mi champion bi euh, ni Dakar Sacré-Cœur moom ma nga ca kaw ba léegi di doxal dafa daan Stade de Mbour ñaari bal si ndam la tax na bëggaay wajah seen taxawaay ca boppi classement Ligue 1 bu Sénégal ka leen ji tàggat ñoom waa Dakar Sacré-Cœur Assane Fall am na baat yenn yu mu yëkki ba nu ba xawoon na métti tuuti parce que ñu ngi doon joué ak Stade Mbour équipe boo xam ne bon un un impact indi na indi na liga indi nañ tamit ñaari ballon yoo xam ne dóor ko si poteau bi mais ñun tamit bon delluwuñ ginnaaw parce que am nañ ñaari occasion yoo xam ne bon def nañ ko si biir loolu du si ginnaaw rek ci ligne yëpp la moo tax li ñu sàmm di wax rek liggéey bi day continuer am na yoo xam ne tamit dinañ ko defaraat jubanti ko comme ça ñu gën a mën dem kanam quoi ci les. ku nekk tamit bëggoon na nekk si jaaneel jongante bi leader loolu moo ñu dal fii tey bon dañ koy dañ koy santé yàlla te jéem a góorgóorlu waaw jéem a def lu gën liñ ñu defoon daaw rek sinon ñu def li ñu defoon daaw waaw mais lu ñu mën a am taal dañ koy jël ba pour mën a jëm avancer. ñi neen ñi nga xam ni tamit dañoo daal di doon euh, doxal ngir fexe yéeg ca kaw itam mooy douane dañoo daal di lijjanti seen digganteeg waa ñaari tali ak xel teelu leen mooy tundiku ndëgg sërëx yi woon daaw yeneen waa ñaari tali tegaloon ba mujj ca génne ndam douane moom mujjee daan ñaari tali benn bal si dara Joseph Senghor bi leen di tàggat ni nii la waajalee match su démbam bi. il fallait être intelligent contrôler marché bi à l'usure dañu xeexee ba sonn suñu xeexee ba sonn nañ bàyyi avec la vitesse de nos excentres une capacité de percussion dagg je crois que la mais c'est pas dans le combat mais dans le combat aussi il fallait que nous ayons on a des ingrédients on a des arguments dans sur ce point parce que dans le la nous avons dañuy mbëkk bousculer ñu Nous euh, avons vraiment c'est pas c'était pas trop préparé donc on s'est préparé par rapport à ça donc on a répondu par rapport à l'impact euh, bu fu la waree laaj football du le ballon bi espace espace qui restait derrière parce que trois trois défenseurs mu défense sur toute la largeur du terrain donc, euh, on a exploité l'espace qui est entre les latéraux à trois défenseurs centraux par le Diar. Mais sur le but, c'est dans l'axe de Diar. Une pied ballon élaboré sur le côté fixé. jox profondeur entre les deux défenseurs centraux je crois que échappé Bon, ils disent que arbitre arrive, arbitre mais ñëpp gis nañ le gars il vient de derrière jaar c'est seen diggante fixé góol bi dugal bal bi. Euh, jongante beneen bu doxoon diggante champion titre bi génération foot doon dajante ak waa Mbour Petite Côte ca Mbour gaay itam champion dañu dañuy dem foofu daal itam ñom itam def ndank temp tempal ba yoxusu waa Mbour Petite Côte ñibbi sek ñetti poñe 1-0 la mujjé Djibi Fall moy tagat champion en titre génération foot. xamoon nañu bi ñuy ñew match bi du yomb parce que adversaire bi da fay bëgg gagner mais aussi xamone nañ liñ fi fekk bon terrain bi metti na trop donc pour jouer si ñun xamone nañu lolu football bi ñi bëgg mënuñu ko am à 100 parce que état de terrain bee tax suñu mënee jouer dal nañ ko def suñu mënta jouer maintenant.

Eh, daal di génn ñi ñi eggalee match bi ci 10 mu metti woon trop waaye nag eh, dañuy félicité xale yi ndax eh, téye nañ ko ba match bi jeex ba yàlla may ñu dem nu jàpp nag si Ligue 2 bi tey ji dinañu jeexal programme bi Guédiawaye mooy dajeek waa Kër Madior ci ngoon si démb wakam dafa daal di daan port benn si dara daal di mooy ca bopp classement ba Thiès FC témboog waa Demba Diop FC ku ne am benn ci sa morom nu ne mel la Linguère defandoo ak waa Amitié FC Africa Promo ak Sonacos dañoo témbo itam ku ne dugalul dara kon classement ba ci Ligue 2 bi euh, Wakaam moo jiitu juróom-benni poñ topp ca Thiès FC Sonacos ku ne ñeent nga am tey ci bëccëg bi tam boori 11h njoogu dinoon def tirage au mhm. sort Ligue des champions huitième de finale yi ci mhm. Europe dinañu xam euh, ñoom Paris Saint-Germain ñoom Real Madrid ñoom Barça ñoom. Mhm. ku ci nekk kan nga war a te bu ba ci kanam lépp dina leer incha allah Diagne. ak RFM kumpa jeex na. yegg si ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Ndati dalena Jam, ak jàmm ubi jii édition bu festival international biñ le plus lu jëm ci film documentaire tamuy amé ci Ndar Géej mu di cinéma bo xamni ni ci biti lañ koy lu ci fukki film daanu ko fa wane ren réalisateur producteur bi du Ousmane William Bay lañu jël mu président jury bu compétition officielle ba Anna Rocha Dajena ak festival bari won nañ liggéey ci week-end bi équipe bi nga xamante ne moom mooy organiser fukkeeli édition festival international du film documentaire de Saint-Louis ren nag bari na lu yees bu ñu sukkandikoo ci Sébastien Tendeng bokk ci équipe de coordination bile. comme dañu wax ne festival africain la ay doomu Afrique ak festival ci Afrique dañuy jéem a daal def li nga xam ne moom moo gën a ànd ak ñun lu ñuy dund fii nii quoi. na benn trophée boo xam ne ñun sargal dok lañ ko tuddee ren nag pour la première fois ñu ubbi ko ci. ñi nga xam ne du ñooy africain mais seen gis-gis ci Afrique nekk na gis-gis boo xam ne ñun rafetlu nañ ko. Mm-hmm. donc ñu ubbi ko euh, ci benn auteur euh, réalisateur euh, italien bu tudd Stefano Savona. donte ne ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci wàllu koppar. équipe bi dafa fas yéene taxaw tem ngir festival bi gën a law waaye ñu ngi sàkku ci kilifa yi nekk ci ndar ñu gën a dugal seen loxo ci festival bi nga xamante ne film documentaire donc lañ ko jegleel waa ndar ñëw tamit euh, autorité dëkk bi gën cee jàpp aada ak cosaan euh, parce que dafa xaw a ñoom bool ko waxee dañu foog ne fecc la rek ak yooyu mais euh, voilà commencé nañu jàng ne wax dëgg yàlla événement bu important la voilà yok passe passe euh, ci ci ci activité bi ñi def ni parce que dafa am place am ci biir euh, agenda culturel u Ndar gulet nak ci une ñenti édition benn séquence bi ñu dipé panorama Sénégal ak ay film yo xamantene Sénégal lañ ko tourner di ci wax wolof té ñu fasiyéné ko projeté en plein air ci ay gox yu bëri yu ci melni Sor Mbaget Ndar Ana Rocha ma nga won ci Ndar bokkoon ci taskatu xibaar yi nga xamni ne ñu ñoo ci dendu Afrique soowu jant te ñuy lak kàllaam ak France ci tàggat goo xam ne nii juróom fan def nañ ko foofa ca ndar ba ñu paree tëgg nañu ab charte duppeekoo peeko charte culturelle francophone loolu lañu ca bëgg fexe ba lépp lu laal ci wàllu aada ak cosaan ci dendu Afrique ñu mën ko jël en charge festival international Dakar Court daal dinañ koy ndar képp festival ba nii la tëddee di maanaam ña nga xam ni ñoom ñoo jël prix un air de Kora bu réalisatrice Angèle jaban bi moom moo jël grand prix national ba ñu duppeekoo ko Annette Mbaye d'Erneville grand prix du jury bi dit Laurence Attali ak film bi tabaski lañ ko jagleel Alassane Sy ak Fatou Ndiaye ñom ñoo prix meilleure interprétation masculine manam ci walu goor ñi Fatou jël meilleur prix interprétation féminine Madame biñ jagleel jigéen ñi jageen jëf ci déglu bi ba